ji ji ok ok ok gars yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax Ron Kara la biir DK TV tey nag gars yi li ñu fi indi ñun ñëpp xam nañ ko dañoo ñëw fekk benn booy boo xamante ni la nekk biir Tivaouane Peulh booy la koy defee fii nga xamante ni mooy biir Tivaouane Peulh terrain Médina terrain ASC Médina tey ko biir koñam xool moom nan lay dundee ak nan lay waajee concert bi gars yi dañuy dem ñëw ñu xool booy fekk kafe lay ferek dañuy dem biir kafe go xool ko gaay yi DK TV topp moo ñu dem. ji waaw daa mel ni daa mel ni daa mel ni daa mel ni suñu ndaanaan a ngi nii ki ñuy wëree nii boobu xew si jamono Real Homme Show waaw mooy ni gis ngeen gars yi comme niñ leen ko waxee woon Real Homme Show mi ngi nii ci biir kafe gi lañ ko fekk gis ngeen mu laal kafeem kaasu kafeem xam nga loolu Homme Show naka affaire yi. moo ngi rek. yaa ngi waaj. oui ñoo ngi waaj bu baax. est que léppay dugg xam nga. oui léppay dugg kay lu mu laay rek mooy si biir léegi dañuy daaj xam nga daaj daajee ñu gën a yaatal mooy loolu nañ daaj. ji gars yi ñu ngi nii ak Real Omzo li ma leen ko waxee woon booy bi xew si jamono booy bi nga xamante ni mooy waaj lu rëy rëy rëy rëy le 24 réel yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm waaj bu baax. wooy ñoo ngi waaj bu baax kay. Hmm. kon instant yi lépp impec. les ins bi waaw lépp impec kay. Hmm. Hmm. kon yow tey jii nii maanaam nan ngay waajee programme bi. ah programme bi dama xëy waaye ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim jeexaleeg alhamdulilahi rabbil alamin ndax programme moom dama dafa yàgg nekk sama objectif. dama ko yàgg bëgg programme bi woy noonu la demee. Hmm. waaw dégg ngeen réel Omzo li mu jot a wax nee na programme bi da ko yàgg bëgg xama yàgg nekk bëgg-bëggam la moo tax mu def ko mais réel est-ce que est-ce que concert bi gars yi dinañ ñëw. woy gars yi dinañ ñëw kay. Hmm. incha allah waaw su neexee yàlla. mën nga assuré gars yi loolu ne gars yi dinañ ñëw. incha allah waaw day fees dell. réel terrain bi rëy na de. rëy na kay ku moo xam moos xam ni moos réel da koy feesal incha allah waaw. réel ñaata son nga am. réel benn son la am. benn son la am benn son waaw. boobu dëgër na fit boobu benn son la am. nee daa tëgg concert te da feesal dell. te loolu wóorul de est-ce que concert dina fees. non day fees dell. ndax papa classique ay eh, te réel am Omzo moom fii ku ko xamul dégg nga ko n'est-ce waaw. waaw ah, yi kon dégg ngeen ko réel booy bu am fit la benn son la am ci game bi. yàggul ci game bi tëgg na concert neen daa woote te neen da feesal dell. réel loolu la wax réel nee na day feesal dell concert bi yaa ngi tëgg sa première concert nga def ko plein neer c'est lu ma ko def plein air sax c'est que bu ndaw laa tamit mooy soog dugg si game bi aw ma moyen bi noonu yaa ma gën a xam moo tax ma def ko plein air def ko nag sama koñ. foo xam ne samay mbokk sama ñëpp jege na ma ma def leen ko bëggal leen ndax gars yi xam gën ma ràññee si game bi ndax léeg-léeg da tëgg da dem jouer concert. am ñoo xam dañ lay bëgg seetaan duñ ko mën def loolu waral tamit ma def ko. waaw dégg ngeen li mu jot a wax nee na carrément nekk biir koñam ak gars yi xam ko ba pare parce que la plupart dama gis rapport yoo xamante bu ñuy tëgg concert dañuy génn moom mu ne day tëgg premier concert fii la koy tëggee fii la tëggee premier concert am kon Real Omzo gàcce ngaalaama ci loolu noonu di di waxaat concert bi maanaam lan nga ñu war a mën a jox loo xamante ni lii nii dina dina dina woo nit ñi biir concert bi lan nga ñu mën a tegal. concert bi moom incha allah war lu bëri bëri daal mu ngi si biir ndax soo xool Real Omzo moom dafa ñëw def benn son classique gars yëpp ràññee ko si game bi ma nekk loo xam mu nekk loo xam ne tamit dama xaa yàgg bëgg muy classique ba ñëpp du mu woowee papa classique incha allah concert bi day neex te incha dina fees loolu daal mën naa la waa gars yi ba léegi ñu ngi ci biir DK TV dégg ngeen li wax nee na bi dina fees dina dóob. te dina neex aussi kon tey jii nii maanaam ñan ñan ñan ñan ñan ngay xaar ci concert bi ak ñan ngay woo ci concert bi tey jii. concert bi ah man de ins bi nii xaaruma kenn taw woo naa artiste képp kii artiste wampal képp kii artiste tamit nga jóge fu nekk jàppal ni concert bi seen concert la woy ndax ñëpp lañu woo duñu woo kii bàyyi kële ku si xaj rek incha allah toujours waa si neexee yàlla di nga gis sa conducteur yi wër. Mhm. waa gars yi ko. Real Omzo nee na képp kuy rapport ak foo mënti nekk war na la ci biir concert bi war na la ci biir concert bi ak ak ak képp koo xamante ni concert moo tax a jóg la ci biir concert bi ñëwal nga jàpp ci concert bi. gars yi Real Omzo ba léegi dañuy des ak yow ci biir DK TV tey jii nii lan nga nu mën a ñamal. lu bëri mën naa leen nga ñamal moom wax dëgg yàlla waaw. kon baara moo ne ci café gi. góol bu mag bi góol dëkk bi. Mhm. léegi Real dañ lay jox nga ñamal ñu tuuti ci ci kii bi ci ci affaire yi li ngay waaj. Ah. G G. Okay, what's mani konkon si classique bu mu bég ni intérêt frère de Sade te nga bénéficio intérêt ñu bokk nit ñi tare ndax seen téere du fond de forme figig dixil ngeen manqué leer xolu daada fees xali ma joo si li ka naqaral artiste bala rapport ñu ñoo ko foog ndax aaral fii këtëb rap carrière tim ñoo di intalaw kala sa morom baay di naan papa nga booy jaay bandi yëpp laay kocco ki fin togg rab bu baax jox la nga lekk soo xiifee man dama aay wu seen nekkatul de andi saay saay om soo di jàppee du bàyyi ji ji ji ji gars yi kon xam ngeen ni concert bi du yomb te ngeen réel Omzo li mu maye dégg ngeen booy bi li mu booy bu ndaw la am talent mën rab torop torop torop torop torop mën rabam balaa ngeen ko xam ngeen ñëw ci concert bi le 24 décembre ci biir terrain Médina ànd ci ak waa DK TV ñu ñëw pëndal concert ba pënd parce que réel Omzo pare na moom nee pare na pare nañ naka waa koñ bi ñoom ñëpp pare nañ. waaw ah, waa koñ bi wooyi kenn seetaanu ma ba si waa jamono booy jamono yi ñoo nekkee nii fii laa fii laa dëkk mais jamono laa yendu chaque jour incha allah ba si ñoom seetaan nuñ ma benn yoon si concert bi tamit PV lu mu munti toll su ko indee si koñ bi ñoom ñëpp si taxaw léppay dem. waaw gars yi dégg ko nee eh, mu ngi ziar waa DK TV bu baax a baax a baax a baax di ziar tamit waa jamono ñi nga xamante ñoo ñoo ñoo ñoo jàpp ci combat bi ñoo jàpp ci combat bi parce que fii kenn ñëwul artiste mënoon nekk jékki-jékki rek bëgg a demal sa bopp fu ne nga dugg fa yooyu noonu dañ lay yóbbu xam nga ba nga dem mooy loolu. ngaa ko blende maa ngi seetaan DK TV. di dund gis DK TV. Malomzo daal maa ngi seetaan DK TV. pré lañ ma liggéey la ma liggéey DK TV way dina ko seetaan waay voilà. yàlla na nga nekk ca kanam li neexul. DKTV. connectez wu leen